ba pare ba fi ñu ngi lay ñu ngi lay jaar. ajal bu dellu sa place ajal bu ñu woore koo man di taxaw fii ñëw jàkkaarloo li nga xamante ni mooy tribune bi di daal di lay jël sama gars yi est-ce que doo leen positionné wu nii bari di taxawee. kon tey lii yaa ko dóom. ayca nga ba bëri ajeen. ayca muy loolu tàccu na ci añeel bi njëkk a défilé Tara booy kaay di kaay kaay di kaay kaay nekk na catégorie añeel moo njëkk a défilé kaay borom Tara kaay avancé tuuti kaay tuuti. taara bu ngi noonu waaw euh, taara ban box la jóge président Issa Saka bergerie sopp sëñ Saliou moom kan mooy papaam ah Saka mooy papaam tàccu leen ko bu taara mu ngi noonu sëtu bi nga xamante ni mooy MCK bokk ci catégorie agnelle eh, tàccu leen ko bu baax a baax encore une fois eh, deuxième agnelle mu ngi tudd bébé Adja bokk ci numéro 45 ana bébé Adja bébé Adja anamu bébé laay asar amul ku bu baax a baax bébé Adja bokk ci numéro mu ngi noonu di défilé eh, catégorie agnelle Kategori e, agnelle bi la bok moom mi nga xamantani moy e, bébé Adja e, mu ngi doon jakarlo public bi ban box ban ban ban kan moy papa waaw mbay balaay sha allah ma ngi nuyu ñëpp di xaar ñëpp waaw kii moy bébé Adja baye ko bergerie diwanu Bamba box numéro 45 mom nek na doom bi nga xam ne mooy aynuma di Pam daw moko jur Pam daw bi nga xamni moko jur moy Merlin. mën na nekk doomu ado junior ado junior ado fils ado fils ado ado boy séeréer macha allah yaayam nekk blanche neige nekk doomu building building aussi wala borom bergerie Birame Ndeye uh-huh. ak euh, laaj yi uh-huh. tàccu ko bu baax a baax moom mi nga xamante ni mooy bébé bokk ci añeel boo xamante ni pédigiréem euh, tey jii euh, boo ko gisee rek méngoo naag ak ay mbokkam méngoo naag ak ay maamam suivant bi ci mu ngi tudd madame Baye box numéro 57 A tàccu bu baax a baax mu daal di défilé madame Baye mu ngi noonu nekk ci catégorie añal tournel tournel nga ñëw madame Baye mu ngi noonu di défilé demal jàkkaarloog public bi demal demal tàccu leen ko encore une fois madame Baye moo ngi noonu box numéro 57 A bokk ci catégorie añal tey boo xoolee ay añal yi nga xamante ni exposé noonu leen ci sixième édition yi. boo leen xoolee rek nga xamni eh, ci seen phénotype ci seen critère rien à dire gëmm jël añel yu extraordinaire ki kat mooy papam doomu karbalal ki ya doomu 77 la 77 boko waxe sa xel dina dem ci Zlatan tay ji nga xamni ni wa keur doom islam la kon auteur dugali mais Diagne produit mo nek nii yaayam doomu zalatan la tan bo waxe zalatan diga wax isab kon da ngay xam li bezeri bay joge jaay ñoom tax na ci riparib tàccu ko bu baax baax encore une fois tay jii surtout zalatan doomu yaayam nek doomu 77 b Tafa Arafat Karbala bu nga xamante boko jur diga ngay bu baax baax madame bay tay benen añel bi ci doom mu ngi tuddu Astel Astel nek 77 b tàccu ko bu baax baax dafa dag dafa dag asel boo nekk noonu nekk box numéro 57B euh, asel nekk ci catégorie añel asel mu ngi noonu def ko ndànk rek tey jii naxtaan ko naxtaan ko mu défilé ak moom ndànk-ndànk moom mi nga xamante ni mooy asel ah mën bay foog mu jiitu asel topp ci asel mu ngi noonu moom mën a bay xanaa ñoom ñaar ñoo bokkoon box tàccu leen ko bu baax a baax ñoo bokkoon box ñoom mi nga xamante ni mooy asel ak mën a bay bu Maram bay ñëwul rek eh, tey jii moom du nekk moom mi nga xamante ni mooy astel mais nekk na añel bu rafet añel boo xamante ni eh, gëmu jël la mais añel bi baa dina ñibbi kii mooy kan astel kii mooy soxna astel sel di doomu Karbala du ah, moom tamit doomu Karbala kan mooy yaayam yaayam ñu tudd Faydu doomu Faydu Faydu benn doomu Maysara ak Nawmi tatu leen ko bu baax baax soxna Asel boko ko xoolee mu ngi jugee box numéro 57 B nekk na ay añel yoo xamante ni Karbala mu ngi commencé di def production bu extraordinaire Karbala nak mu nga nekk ci biir Siri Gelawaar tàccu leen ko bu baax a baax baax production Karbala yi nga xamante ni macha allah tey jii Asel dina mën a kii ne da baax box numéro 33 tàccu leen ko bu baax baax encore une fois. Eh, ki dëkk baax muy noonu di défilé bokk ci catégorie añel waaye tàccu leen añel bi waaye joke baa ngi noonu di ko défilé eh, ki ne da baax booy añel bi doo ma ko jox ban box la ne eh, ah jili ñëw na mais jili ki ne da baax bi kan mooy papaam waaw may balaay ki ne da baax dañ defu ay numaadi ay ñang mbaalo mu ngi noonu ki mooy ki ne da baax nekk doom ay numaadi yaayam nekk madame Lo madame Lo nekk doom ci nga xamne ne moy star star nekk doom magistrat waaw mu nekk agnel de plaisir sha allah mu ngi noonu. bay boobu si ñaata bo mom mu ngi tollu ci 8 mois suma juumul. Uh-huh. en plus mu ngi bàyyi ko bergerie primerie ci suñu doyen ñoom Baalo. Uh-huh. suñu abukan. Uh-huh. tàcc leen ko bu baax baax félicitations Agnel Baalo waaw waaw ki ne da baax en tout cas agnel bu am am ay critères la. Euh, si tamit añeel bu am capital génétique la euh, bàyyi leen ko xel bu baax a baax Khady Seck box numéro 41 ana Khady Seck tàcc leen ko bu baax a baax Khady Seck mu défilé euh, catégorie añeel la ki ñu ko tuddee Cheikh Kébélé borom bergerie Mouride tàcc leen ko bu baax a baax tàcc leen ko may leen ko loxo encore une fois mais grand yëkkatil loosu xar bi waaw añeel bi jàkkaarloog tey jii jàkkaarloog public bi ñu daan koy xool añel boo xamante boo boo ko gisee xat waaw Khady Seck box numéro 41 ba tey yaa koy présenté jili jili kaay jili añel bi yaa koy sek Baye Seck ñu lay jaajëfal bu baax a baax waaw euh, mu ngi mu nekk añel bu nga xamante ni doomu noppil la noppil boobu liif moo ko jur liif Ndiaga Sarr a ko jur Ndiaga Sarr nekk doom ci Maysa Wade mhm. waaw Maysa Wade j'espère que kenn duñu ko présenté ci monde élevage mhm. waaw yaayam aussi ci Maysa Wade bi la nekk parce que madame Ndiaye moo jur yaayam madame Ndiaye boobu aussi euh, ki ko jur mooy Ndiaga Sarr Ndiaga Sarr aussi Maysa Wade la mhm. noonu mu nekk añel bu doyo doy waar ñu siy félicité doyen Bira ci liggéey bu am am solo tàccu leen ko a Eh, tey jii boo ko xoolee da ngay xam ne eh, fixe may sa waat wala ba tey eh, Ramsès beeg booy lému bi da nga gis ci moom tey bu nekk añeel bu am ossature am esthétique bu extraordinaire ki ci toog mooy Maguette Gueye box numéro 30 tàcc leen ko bu baax a baax Maguette Gueye catégorie añeel bu ngi noonu di défilé waaye tàcc leen waaye Maguette Gueye bu ngi noonu di défilé Maguette Gueye bu ngi noonu avancé tuuti demal ba léeg-léeg gars bul teel a doyal na màgget ngay ñëw ay añeel yoo xamante ni boo leen tuddal taxawal mais booy xanaa dogu woo kaay bi kaay bul xoj xar bi bul ko xoj yëkkati loo si tuuti jàkkaarloo public bi avancé kaay kaay kaay bi màgget ngay nekk catégorie añeel boo xam waa tuddal ñëwal lii foofu baax na c'est bon jàkkaarloo public bi euh, tey màgget ngay nekk na añeel boo xamante ni boo ko gisee rek. rien à dire tey ñëw ci sixième édition bi nga xamante ni ki ñu tuddee catégorie bi kooku mooy Cheikh Kébé lay tey ñu koy présenté bu jugee ca ASECNA mais kan mooy papam waaw kii moom sa réew mooy papam moom sa réew nekk doomu Jogay sëtu Jogay la ah doomu moom sa réew la booy wuy ma karisel xar bi karisel xar bi karisel xar bi raay ko raay ko mu taxaw doo ko teel jiidi raayal xar bi taxawal euh, jili téyel xar bi nga karise ko public bi gis ko euh, tey jii ñu daan koy xool euh, moom mi nga xamante ni mooy Khady Seck jugee box numéro Maguette Gueye jugee box numéro 30 tey jii mais kan mooy yaayam. Eh, yaayam doomu sëtu Roi oh. Basir. jogay bi la ak Roi Basir. ama tey jii boo waxee jogay wax Mahfouz soo waxee Mahfouz wax Abdou Fall. te boo waxee Abdou Fall wax Géejawaay kon tàcc leen ko bu baax a baax moom mi nga xamante ni euh, mooy Maguette Gueye euh, box numéro 30 euh, box numéro bi nga xamante ni mooy box numéro 30 madame Dramé madame Dramé na ñëw tàcc leen ko bu baax a baax madame Dramé mu défilé walla ok tàcc leen ko bu baax a baax madame Dramé mu ngi noonu di défilé catégorie agnelle moom madame Dramé bokk ci añe li nga xamante ni dina défilé ci sixième édition bi boo leen rek gëmu jël la xar boo ko xoolee présence am rek tey jii boo yàggee gis ay xar wala boo yàggee gis ay naanaan ci présence xar bi rek di nga xam ni xar bi nii la mel ak xar bi nii la am ba tey moom mi nga xamante ni mooy euh, madame Dramé jugee box numéro 30 madame Dramé ñaata mois la am. boobu kan mooy papaam. bon Safar mooy papaam Safar nekk doomu moom sa réew moom sa réew nekk doomu ba tey moom sa réew bi dafay ñëwaat joge mais lan moo tax tey nga choisir ligne joge bi concentré wu. waaw mais dañoo base première bi joge bi def rek moo tax ñu suivre si joge bi quoi parce que joge moom dafa mën a nekk si suñu kii opté quoi. waaw parce que suñu côté moo yoroon moom sa réew muy Modou nekk nit ku baax muy soo mu judd la ay famille extraordinaire tàcc ko bu baax a baax madame Dramé ci critère ci feriti boo gisee Moussa Diouf borom kaas ba maa ngi lay bu baax a baax eh, tey ji continuer avec nga xamante ni mooy première a beneen añel bi ci topp eh, sirène box numéro quarante cinq sirène ana sirène ana sirène tàcc leen sirène mu daal di ñëw défilé eh, sirène di ñëw défilé bàngaan président Dame mi nga xamante ni ñu ngi leen di gis ci ginnaaw barrière bi ñu ndax ñoom la ko fi defal ñu leen di wax ne ci taaru défilé bi ñu leen bokk ñu bu jëf bi gën a pressé rek muy a rafetal défilé bi kon ñu ngi woo góor ak jigéen ñi nga xamante ni dañoo ñëw spectacle Ramadan des éleveurs euh, catégorie añeel la bokk mais jili Siré ñaata wala moom euh, tey jii ban box la jógee quarante cinq mais kat mooy papaam. waaw si ren mi ngi bàyyi ko box quarante cinq bergerie yi diwaanu Bamba. moom euh, tey kat mooy papaam si ren. si ren doomu Kawsara la Kawsara nekk xar bu nga xamante ni euh, dañoo jël doomu Soleil teg ko ci macha allah mu jur femelle ñu jël femelle boobu. macha allah ban Papi Dieye. Papi ki nga xam ne mooy femelle boobu teg ko ci feu rouge mu jur

doomu xarañ la xarañ aussi préfet moo ko jur uh-huh. mais xarañ dañoo jël euh, Mahfouz ak euh, Marème Faye Sall boole leen ñu jur ki nga xam ne mooy Diarra Ndiaye Diarra Ndiaye lañ ki nga xam ne mooy Serigne Dakaru Serigne Dakaru doomu Croesus la ñu jur princesse princesse boobu lañ teg ci ki nga xam ne mooy euh, préfet mu jur ki nga xam ne mooy xarañ tey Diarra Ndiaye mu ngi woon bergerie Dialawaly bu Boubacar Thiam xarañ moomu doomu préfet boobu foofu la nekkoon foofu la nekkoon parce que tey soo xoolee xarañ boobu ko jëlee Euh, miss euh, princesse boobu lañ mu jur xarañ léegi ñu jël xarañ teg ko ci doomu nooree ni bi nga xam ne doomu Maxu Sey la yaayam daal ko bu baax a baax sireen tey jii euh, ni jili tojee pédigré bi nga xam ni te añeel bu am ma añeel bu am mensuration la añeel bu am critère tàcc leen ko bu baax a baax daal ñëw moom mi nga xamante ne mooy sireen bi ci topp maanaam bébé mu ngi noonu bébé fa tàccu leen ko encore une fois may leen ko loxo euh, catégorie agnelle bébé fa euh, tey boo ko xoolee rek ci melo xamaguñu pédigré bi mais tey li ñuy njëkk xool ci xar mooy présence bi présence bi ngay xool tey nga xool takk-takk yi nekk ci moom critères yi nekk ci moom saxu yeel bi xool LCS bi xool bague bi daal xool esthétique bi euh, tey jii loolu la ñuy xool te macha allah añel yi ñu gis si yëpp loolu mu ngi ci ñoom mais grand kii ñaata wàllam ñu ngi si sept mois. kat mooy papaam. kii doomu doomu colonel Khadafi la. colonel Khadafi la di doomu Ndour Ndour di doomu Vietnam yaa jëli Ndour di sëtu Arfa. Ndour bi nekkoon Tëngéej. waaw doomu Vietnam boobu. waaw waaw tàcc leen ko bu baax a baax a baax kat mooy yaayam moom. kii yaayam sëtu bi day ñëwaat. Oh. tàcc leen ko bu baax a baax moom yi nga xamante Reega si box 21 Bergerie soxna Oumou Touba ah président yi ah, du noppi ah, mais est-ce que dellu dina delluwaat delluwaat ah du dellu mais Maguette est-ce que kii dina dellu ah, kii du dellu kii du génn ci bi mais laay bindal sec ko kii pare yaa ngi fi pare yaa ngi koy xool laay bi rek jokk ko tàcc leen bu baax a baax moom mi nga xamante mooy bébé faa Eh, jugee ci box numéro 21 eh, ki ci topp mooy eh, mami box numéro 15 ana mami tàcc leen mami mu défilé e boy e boy e jugaleen fi añeel grand kaay di ñëwal lii ci man ñëwal lii ci man gars yi bu ñu jëlee tey jii tey ba pare moom mami ñëw jàkkaarloo public bi ñu présenté leen mami tey mami nag tey benn melo la def jugee ci box numéro box numéro bi nga xamante ni mooy quinze mami ñaata moo am mi ngi am neuf doomu Kanka Kanka di doomu am na fils bu grand la ñu commencé. Kanka boobu ok am na fils boobu noonu mu ngi soxee ko ci Mozart Mozart doomu Carlo bi. Mhm. laal ci Picasso laal ci magistrat lu bari laal ci boy séeréer lu bari. boobu yaayam fan la bokk boobu mami. boobu mami yaayam doomu Pogba la Pogba di sëtu Al Gore. Mhm. ak euh, Soleil. Mhm. kii Lamine Konaté moo la ko jox. déedéet maa ko juddulee man maa yoroon euh, yaa ngi yoroon Kanta. waaw man bu baax a baax ban bergerie la jógee. numéro la tudd. Uh-huh. box numéro numéro 15 euh, tey jii mu bokk ci añal yi nga xamante ni euh, ñëw na ci sixième édition bi encore une fois añal bu am ay critères am capital génétique bu extraordinaire moom ma di wane ni jigéen laa am naay feem ta damay daagu. moom madame Sidibé Agnel boo xamante ni tey ji macha allah fuddal na tànk yi fuddal geen bi bu fas yéenee jàkkaarloo ñi nga xamante ni mooy public bi ñëwal nii ñëwal ñëwal ba ci kanam eh, tey yegg seegoo ñëwal fii jàkkaarloo eh, tey jii eh, technicien yi ñu daal di xool ki nga xamante ni mooy madame Sidibé jóge ci box numéro 17 madame Sidibé ñaata mois la am. 11 mois kan mooy papaam. papaam dina jël benn doomu Arafat doomu Kelewaar yaayam doomu Aadama doomu magistrat di def si benn di def gis ni Kelewaar boo ko seex ak magistrat waaw uh-huh. ak Picasso bi ak Picasso bi fan la laalee ci Picasso bi doomu Picasso doomu doomu tàcc leen ko bu baax a baax tey jii Picasso moo ko séq ak ki nga xamante ni mooy magistrat ak gelawaar bi kon da ngay gis ni ossature esthétique ak li nga xam mooy mensuration moo ko composé na giir gi mu xamante ni moo nekk ci moom loolu lañ gën a fort leen ko bu baax a baax moom mi nga xamante ni mooy madame Sidibé tey jii Ndeye Yari Agnel la Ndeye Yacine box numéro box numéro vingt cinq la jugee bokk ci catégorie añeel mu ngi jàkkaarloo public bi waaw waaw Ndeye Yacine macha allah eh, tey eh, foog ñu laajte nag ban bergerie la jógee Ndeye Yacine. ñaata mois la Ndeye Yacine am. moom eh, moom kan mooy papaam. moom kat mooy yaayam kon dangay gis ni tey jii moom dafa saf sàpp ci alcool da tey boo waxee eh, Cheikh Anta wax Dieyna wax Ado eh, mais nag tey jii yaayam fa mu moom papaam eh. Uh-huh. tàcc len ko bu baax baax bo mi nga xamante ni uh, na ci category agneli di uh, Ndeye Yacine jugee box numero 25 ki ci top bu ngi tuddu Fafa box numero 31 ana Fafa. ana fal bu baax baax uh, tay jii borom bergerie baye ata bu ngi nonu sama gaay ki nga xamante moy mooy agnel bi Fafa la tudd box numero 31 Fafa tay jii ah c'est moi mais Seybu Wala moom ñaat ñaat kan fan la bokk kan mooy papaam. gànn. mooy papaam. gànn doomu kan la. doomu patriote. doomu doomu ndindi. doomu ndindi. allah moom yaayam mu bokk. yaayam surtout waa Basir la. ndindi bi ak waa Basir bi day fay Seybu Wala bi. tàccu leen ko bu baax a baax macha allah nekk na ci mais maa ngaa noo gisee tëgg bi. o dëgg bi ñoom sànq yaa ngi koy wax. Uh-huh. xar bu naagoo bu doxee. Uh-huh. war naa comme jugee. comme bàyyeekoo na pare nag nga doon laajte nag. fu bokk fu yi daf a wax critères yi daf uh-huh. waaye xam nga alal moom dundu lu ñu borom. borom xar mi taxaw man xam naa ko fii. macha allah macha allah merci ate mu ngi noonu Fafa tàcc leen ko bu baax a baax c'est wala am bay leen ko loxo moom Fafa nekk na tey jii añel moo xamante ni macha allah expert yi euh, Tokora kan mooy présenté Tokora ah ki Tokora yow la ñuy xaar tey une minute boo ñëwul ñu daal di continuer tey jii dañoo war a dugg directement bergerie bi nga xamante ni a la tokkaraane eh, tey maigre nan nga yore tey añal bu rafet bii rek dañ toog ah, ah mais laay jub na mais laay tokkara yow nga tokkara. moom doomu kan la. maa ngi tudd Léa mais ab doomu building ah, moom ah. grand Ibrahima Sall jóge di ko remercier parce que c'est pas évident ah. nit jógee fu mel ni Kaolack ak gis naa ni mu soree ak ah. ni mu ak koor gi ak koor gi nga ñëw exposé bi jël bi deux bos ah. donc grand yi ñu koy sant bu baax di gërëm quoi waaw donc añal baa ngi nii nekk li ñu Merlin li ñu Building ak li ñu Pawatara Pawatara di sëb birum sax quoi waaw macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax grand tey Ibrahima Sall Ibrahima Sall jóge ba Kaolack Ibrahima Sarr ñu ngi bu baax baax di ko féliciter mais grand est-ce que euh, tey añal bi dina dellu Kaolack mais du des Dakar Ibrahima Sarr ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey ji macha allah euh, tey mooy li laay ñu ngi wax rek tey def yaa maa ngi noonu def leen contact yaa ma mu ñëw jàkkaarloog public bi ñu présenter ki nga xamante mooy yaama grand yaama ñaata mois la am. yaama doomu kan la. doomu SMS ak guddi bi euh, Fatou Mbaye euh, tey boo ko xoolee rek dangay gis ni euh, tey jili ba tey yaa koy présenté moom Fatou Mbaye. waaw maa koy présenté ci sama grand Euh, Fatou Mbaye nekk doom ci Mbackiyou 2 Mbackiyou 2 Tafa Arafat ko jur. Hmm. Tafa Arafat procureur ko jur procureur Bolt Bolt Cheikh macha allah mu ngi noonu. Euh, mais mais kii dama ko xàmmee kër Dame Mbaye sax. non kii kay yo boo ma booy seet daam gis kii jàppal. mais dafa raar nag ndax ba man na deux gii gisuma ko. waaw xam na ñoom ay Modou Modou lañ. mais léegi dafa mel ni dugg na à cent pour cent ci gi. non instant mu ngi ci biir dara door ko ci leen bu baax a baax tey jii ngeen gis ni gën a Euh, tey euh, exposition bi mu def bii mooy sa première édition. waaw ñu ngi remercier waa Reli. di remercier président Dame. di remercier kii bi nga xamante ne moo doon wax ak ndax moom comme ay éleveur lañ te yàlla dogal na yàgg nañ ci. allah taxawam na na. dina ko seet nañ ci moom tey lépp non gis naa ci allah am na solo parce que. Ah, lu bari loo xam ne jàng nañ ci éleveur euh, lu mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ñu ngi leen di remercier di ñaan affaire vraiment affaire bi suñu la ko mais affection bi xanaa kër Dambay la la duggee boo daan ñëw di toog ak moom ndax man fekk naa la fa ñuy toog di jotaay di waxtaan dëgg la waaw lu mel noonu xam nga moom moo jël dëgg jël xam nga jël ko jël ma femelle jox ma ko femelle bi bi a dugg si nii moo ma ko jox ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ko lim ay doomi Arafat doomi Idole képp bépp euh, boo xam ne Sénégal sopp nañ ko rek mu jaar di président René jox egg si na sama kër boo ñëwee sama kër fekk ko mbay ba laay bon foog foog nga visite la kon. waaw non comme dugg nga kay foog nga. non demal Pikine bu baax a baax grand jaxat. mbay ba laay ci mooy njaxat moom daam ay kóllëre lañ ci wàllu immigration. Mm-hmm. bokk nekk Italie. daam indi ko nag Sénégal daal di koy pigir ci xar yi hmm. noonu la demee rek xam nga xar yi moom wàllante la fekk naa ko fa boobu ba tey moo tax bi mu ñëwee dama ko xawoon a gëj a gis mais ñu ngi leen félicité di la encouragé di am mbégte ci ni nga duggee ci élevage investir si grand jaxat jërëjëf acca mu ngi noonu moom bi nga xamante ni eh, tey doomu ndeyu eh, président Dame Mbaye la mu eh, daa défilé Ndeye Marème na dem jàkkaarloog ñi nga xamante ni mooy public bi daf ko tàgg rek tey yàkkamtiwuñu day eh, ah? bareem ah boo koy présenté acca Matar na ñëwoon ah yaa koy présenté mais gars yi leen Matar lañ bëgg bu ñëw aca mu ngi noonu moom mi nga xamante ni mooy day bareem box numéro 44 kaay nii kaay arrièreal ñëwal ci piste bi ñëwal ci milieu ñëwal tuural tournel ci man c'est bon taxawal day bareem ñaata mois la am mois doomu kan la doomu aadama la yaay doomu aadama la am ñoom ñoom ñu toog ci ñun ak asura mais moom papaam day ma rew kii aha dom supersonique supersonique boo ko waxee wax laa diva ak gaynde ah fa la jëlee euh, nopp cereeg soow bi tàcc leen ko bu baax a baax moom day ma rew tey jii boo ko xoolee nekk bu am ossature añel bu am doole mais esthétique bi ba tey mu ngi ci moom day ma ko fàttali ñaata mu wàllaam teew na depuis six mois. six mois la am. bergerie Makarimal Akhlaq. acca mu ngi doon tàccu leen ko bu baax a baax moom day bëreem ren ñu daal di woo ki nga xamante ni mooy Valentine. waaw mbay ba kii mooy Valentine nekk doom ci ki nga xam ne mooy Mbour Géej Mbour Géej nekk doom ci ki nga xamante ne moom mooy Nestor nek nekk doomu Noreyni ak kenn dugub Noreyni doomu Carlo di la yaayam nekk doom ci nga xamante ne mooy Aynoumady mais. doomu bugguñu ah. am teg waaw yeew fa merlin bi ba mu saf saf macha mais tey jii moom kon ko bokk nga xamante ni mooy Amar Gadio. waaw dañoo bokk ndax Amar Gadio ak baayam moom ñoom ñoo bokk benn baay. Ah, ah. waaw. Uh-huh. macha allah tàccul mu ngi mu ngi si ñaata mois ajal moom mu ngi toll ci euh, douze mois. douze mois waaw jugee ban bergerie. bergerie Birame Ndary. tàccu leen ko bu baax a baax moom mi nga xamante ni mooy Valentine nekk ci catégorie agnelle. mais nag dernière añel bi ñuy woo kooku mu ngi tudd añel bi nga xamante ni dina défilé tey ci sixième édition bi nga xamante ni ñu ngi ko tuddee Cheikh Kébé lay nekk éleveur bergerie Mouride Cheikh Kébé lay félicitations encore une fois mais jili ba tey kii moom ban bergerie la jóge waaw kii mu ngi bàyyi ko bergerie Mère Tabane bu taxi trésorier bu ren li waaw suñu denc xaalis bu góor bi ak siir macha allah. Uh-huh. waaw mu ngi noonu kii uh, doom la ci nga xam ne mooy bulëb nekk doom Aliou Aliou nekk doomu Ado Ado séeréer. Uh-huh. ak Aïcha ñoo jur Ado macha allah. kon tey moom laal la ci jëlaat bi ndax tey boo waxee Aliou wax Faris. waaw mu ngi noonu boo uh-huh. waxee Aliou da ngay wax Faris wax ki nga xam ne mooy jëlaat mu nekk xar bu nga xamante ni kenn dootul naan daame li nga xam ne da koy def ci élevage bi ci production macha Euh, box numéro 28 la koy euh, borom bergerie Mouride. non Mbaye Balaye dañuy félicité éleveurs yi. Eh! éleveurs yi dañuy félicité. gars yi parce que ci kaw. Eh. xoolal yéen bu fekkee dañ leen a eh, dem de ñëwaat. dégg nga dem de ñëw. voilà. di dem ne leen eh avancé. gis nañ fi bay daan bay daan suñ ko waxee suñu xel dafay dem ci le grand président Souleymane Diakhaté ñëw na fi sànq. ma ñëw suñu xel aussi dafay dem tey pare ak kii bi muy Issa Saka mais vraiment ñu ngi félicité Cheikh Kébé Leye ci défilé bu am solo bi mu réussir ci jàmm xar yi jëfi seen défilé nan ñi koy commentaire commentaire nan ko. xarit delluwaat nañ ci jàmm loolu ndam la koy sett bi li ngay dox ci xar yàlla fay na la ko yàlla yàlla la fa ndaw nga yàlla sa yoon sedd guy vraiment nekk Zmale bu am doole yi Zmale boo xamante ni macha allah ci eh, esthétique am eh, tey jii xamaguñu nag eh, ñaata mu wàll am ak benn bergerie la jóge mais ne ko jàkk bu ñu di ñëw bokk ci catégorie añoo bokk ci seulement li nga xamante ni box numéro 44 euh, la jógee euh, kaay nii ci man kaay nii ci man euh, kaay andil ma ne ko jàkk fii doy na ko jàkk moom dafa mel ni day bañ a tudde lan mooy problème moom na ko jàkk kaay nii nee nan la jàkk yow kaay mais grand téyel na ko jàkk yow téye ko téye ko waaw mu ngi noonu ñaata moo la am moom ban bergerie la jógee bergerie box numéro 44 ban bergerie bergerie lu tudd Euh, kan mooy papaam da ko jaar. fii Kapral mooy papaam Kapral oh. di doomu Sóoróor Sóoróor doomu Gaynde. moom fixation la kon. waaw fixation la ci Saalum bi. waaw Gaynde ak euh, Rufin. tàccu leen ko bu baax a baax ne ko jaar mais kan moo ko tuddee ne ko jaar. sa papa kan mooy sa papa yow. leenoon ko jàkk grand Omar ka jegoo may leen ko loxo eh, ne ko jàkk nekk seen maal bu rafet seen maal boo xamante ni eh, fixation Saalum la eh, saf sàpp la ca def na tey jii ñaar ñu ko seeq ñëpp te Saalum lañ bàyyeekoo waaye Chérif Laay moo ci topp catégorie añoo may leen ko loxo mu boo xamante ni xamaguñu ñaata weer la am mais maa ngaa doon gisee Chérif Laay yoo Chérif Laay rafet na macha allah. macha allah Chérif loolu loolu dinaa ko laaj Serif Laay dafa mel ni euh, fa mu jugee man xaar ma bañ a wax ndax tey jii euh, Serif Laay boo gisee jaañ taxaw ñu ne Serif Laay et euh, catégorie bi ñu tuddee ko one family ah. est-ce que du ñëw ci seen biir sax mais jaañ bi mooy kan. sama doomu ndey laa waaw moom doomu lépp jàmm la. waaw lépp jàmm nekk doomu <laughs> yaayam fu mbokk yaayam euh, Nairobi bi la Nairobi bi nekk doomu euh, kii doomu. mais yaa ngi yow yaa exposé wala wan famille la jógee. non non kii ñun ñoo ko juble. Uh-huh. ñu ñoo ko juble waaw dañoo jëloon yaayam comme mu si lëkkal bi daal. nga tuddee ko Serif Laye. tuddee ko sama doomu day seet. mu ngi si ñaata leen ko bu baax a baax Serif Laye ak catégorie añoo nekk na añool bu gën a bàyyi xel ah, Serif la bu ngi noonu nekk seen maal boo xamante ne avancé tuuti. na RFI avancé na RFI avancé jàkkaarloog public bi euh, ñu daal di koy xool ki koy présenté na daal di ñëw RFI moom bi nga xamante ni euh, bokk na ci seulement li nga xamante ni boo ko xoolee rek macha allah bàngaat rien à dire. rien macha allah macha allah félicitations. Uh-huh. les éleveurs. mais RFI ñaata moo la am. Hmm? kan moo koy présenté. kii présenté RFI jiili kaay. kaay kaay. jëri kaay présenté ñu RFI ah, kii booy kan booy sugu booy sugu ki si topp caam dollar tàccu leen bu baax a baax RFI nekk na jeune mâle bu am critère am mensuration am ñu tey jii eh, esthétique bu doy eh, tey jii eh, booy sugu dugalal dugalal xar bi booy sugu booy sugu mhm. ah ma ngay mhm. ah, mais may sugu rafet ah. mhm. sugu nekk na tey jii ay jeune man boo xamante ni macha allah rien à tey jii da gis ni élevage dox na ay jeune mâle ngay gis ak ay añel yoo xamante ne xalifa boo ko gisee rek da ngay gis ni rien à dire ci seen critère ak seen phénotype méngoo naag ak seeni mowandik ñi ah. ay ndaanaan lan eh, te même boo xamagul seen pédigré sax ci présence bi rek ci jàkk gi rek daf lay convaincre kon da ngay xam ne élevage mu ngi dox bu baax a baax eh, kii eh, kan mooy papam mooy papam Moussa Diouf nekk doomu. mais seet fi turandoom sànq. waaw turandoo waaw Moussa Diouf Kaas nekk doomu Diouf Sougou. Diouf Sougou nekk doomu Batañe. Batañe lañ boole ko benn doomu jooni jooni Diouf Sougou juddu. waaw Diouf Sougou ñu jël ko teg ko ci Eh, tey jii na ngay gis ni moom dafa am pedigree bu extraordinaire bu nekk ci moom mais moom eh, tey jii eh, booy bi nga xamante ni mooy booy sugu ñaata mu wàllam tàccu bu baax a baax a baax booy sugu tey boo ko xoolee pedigree macha allah est que tey commencé naa sayir waaw waaw ñaari xar yaayam doomu doomu doomu moom réew la moom sa réew doomu bi ba tey na nga ko ciy dëxañaat waaw na mais en tout cas waa Guédiawaye war na la na saf na sàpp ci jogay bi mais est-ce que du Mahfouss beeg ay sax tàccu leen bu baax a baax moom mi nga xamante ni mooy sugu eh, nekk jeune mâle bu am yaakaar ay jeune mâle boo xamante ni Griff Sougou boo ko waxee rek tey da ngay xam ni botanier eh, ba eh, moo fa saf saf di ñëw défilé bokk na ci catégorie añoo kat yow yaa koy présenté kan mooy présenté Thiam Dollar acca kay grand kay kay ñu boy kay avancé li touti bu bu taxaw boobu boobu dafa sori da am dollar ñew jakarlo gi nga xamanteni boy public bi ñu daal koy xol e, ci am dollar mais grand am dollar ñaata mo la am six mois ah macha allah mais mo kan mooy Gan. do doomu kan la patriote ba tey day ñewat ak nit acca mm. <laughs> mu ngi noonu moom Thiam Dollar kan mooy yaayam. Cheikh Wade en tout cas félicitations ndax tey mais bii mooy sa première exposition. troisième fois naka nga gisee foire Relling. Ah, mais bokk ci ak niveau bi fu mu toll. non niveau bi dépassé na dépassé na ñu ngi lay jaajëfal baaxoon acca mu ngi noonu tàccu leen ko bu baax a baax Thiam Dolanda eh, gëm-gëm mu ngi noonu di ñëw box numéro 38 la jigéen eh, tey mu ngi noonu di défilé jàkkaarloog eh, public bi jàkkaarloog les parrains ñi nga xamante ni ñoom lañ tuddee catégorie yi jàkkaarloog kilifa yi mais mais grand mais man gisuma la woon mais gëm-gëm foo ko laaxoon mais kii war a nekk ci ruq bi kii dafa war a génn ñëpp ne ko jàkk. mais moom doomu kan la gëm-gëm. gëm-gëm moom mooy doomu Idi Saloum. Idi Saloum benn. Idi Saloum benn bu ñu ko laaj foofu la juddoo. Seexu Gaynde lañu jël bu jigéen def ci Idi Saloum bu jigéen. Seexu Gaynde. Seexu Gaynde bu jigéen loolu daal moom lañu jël def ci Idi Saloum bu jigéen. mais mais kii fixation la. fixation la mais moom mu ngi si ñaata mois. mooy si huit mois. huit mois tàcc leen ko bu baax a baax gëm-gëm ba bergerie la jógee. ah kooku xam naa ko ah xam naa bergerie Mariama Niane Pikine la ne Billy ñu ngi lay félicité encore une fois tàcc leen Billy mais mais Billy bien Billy naka te day làqatu mais tàcc leen ko encore une fois mais moom ah, ah Billy daal naka li tax mu jël foire bi téye ko ci loxo yëpp nak fanaanal lan daa def ci biir biir tànk dàllam mais barke Rasulullah xar mi huit mois gëm-gëm huit mois gëm-gëm mais nag bon Seexu Gaynde moo ko jur loolu dafa boole koog Ildi Saalum. waaw moom dellu ci si saal ca tey ca Saalum ba. fixation bu extraordinaire. Bili et Bili noonu dëggee ko dëgg jox ko. naka ne da ngay làqatu. non gaa yi ko. Pape moo gëm-gëm jugee box numéro 38. bu ñu jugee ci gëm-gëm eh, dañuy ci ki nga xamante ni mooy góor gi si ruxu bi ossature eh, jeune man bu am esthétique eh, tey jii rien à dire mais boo nga gisee rek tey jii ci présence am non góor gi bi ci ruxu bi génn na ci ruxu di ñëw jàkkaarloog ñi nga xamante ni mooy public bi Babacar Faye maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di présenté góor gi ci ruxu bi ah waaw tey da gis ni public bi yëpp eh, tey ñu ngi tàll loxo ci góor gi ci ruq bi waaw mais nag kii génn na ruq bi mais grand góor gi ci ruq bi ban box la jógee moom kan mooy eh, papa hmm. tàcc leen ko bu baax a baax Pullman tey jii eh, dem ci boy galaya bi tey dooleem ji eh, tey da ngay gis ni eh, macha allah mais moom mu ngi si ñaata mois góor gi ci leen ko bu baax a baax góor gi ci ruq bi tey jii man critères yi ma gis ci moom daf ma neex lool lool lool lool lool ossature esthétique xar day rëy bangaan Uh-huh. jant ji fi mu ne nii moom lañ voté uh-huh. waaw acc mu ngi noonu góor gi ci ruq bi tàcc leen ko bu baax a baax bokk ci uh, catégorie añoo yi nga xamante ni waaye nag waaw man man man ci uh-huh. waaw kii sama xar la kan moom moom lii président Dambay tamit soxla na ko transfert mais kii ban box la jógee ah président Dambay moom koy gën a soxla nag <laughs> mais foog mu sànni xeer Dambay mais boy yaa koy présenté wal en grand cas mais la ma dëgg tuddee xar bi transitaire ay transitaire ngeen ah ay transitaire foo leen dëgg géejawaay ah Pikine ngeen dëgg moom doomu kan la surtout nation la surtout nation la ak Picasso yaay mooy surtout nation papa ji surtout papa ji sëtu Picasso la ngeen boole koog sëtu nation mu ngi si ñaata mu am tàccu leen ko bu baax a baax transitaire tournel booy kaay bul demagul eh, andil ñu transitaire ñëwal lii transitaire dafa yaakaar ni eh, tey gi waaw transitaire dafa jaxlaf nag man bëgg naa tey transitaire bu jaxlaf boo xamante ni day sawar pour conteneur yi di gaaw di génn eh, tey neuf mois la am nekk sëtu nation nekk sëtu ki nga xamante ni mooy Picasso benn sëtu Picasso lañ boole ak sëtu Nations Unies boole ko boo waxee nation wax Khady Diouf wax ki nga xamante ni mooy booy Séeréer waaye boo waxee Picasso wax ki nga xamante ni mooy Kalbin Kam wax Saalum Saalum kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax transitaire bokk ci catégorie año bi nga xamante ni Fawzeyni moo ci topp bokk ci numéro 30 mu ngi noonu bokk ci jeune mali nga xamante ni dañuy défilé ñëwal tuuti avant seen ñëwal ba nii

financement fermement manifester yi ay catégorie seulement li eh, di grand yow li ngi sëf allah de antaluñu ko de ah Sekebe moo may tëb mais ci kan may tëb kan mooy papaam Baye Fall moo ko jur euh, mooy kan mooy yaayam yaa ji da ngeen a jël benn sëtu botañee boole ko Baye Fall tàccu leen ko bu baax a baax encore une fois tey nga gis ni eh, transporteur tey delloo na tur bi eh, ki nga xamante ni mooy Cheikh Kébé mais seen bergerie nu mu bi mooy seen première exposition yaa ngi yéen a ñëw est ce que xam nga ni seen loxo mu ngi ci soos kii ñaata mois la am huit mois la am tàccu leen ko bu baax a baax transporteur Cheikh Kébé wala tay ñu tuddé ko transporteur yépp ñoom ñëpp tax dañ naan eh, tay may leen loxo nongo catégorie año bo xamanteni nongo ndongo mais eh, grand jàkk kaay nii waa tournel ñëwal ni ci mat ñëwal ni ci mat nga jakar lok nongo won ko public bi né nongo jaatu mo alam nongo mu ci dix mois dix mois la bon ban bergerie la jóge ah bergerie sopp sëñ Saliou mais ndongo kan mooy papaam. ndongo nag faaw ma def benn entre parenthèse bu ndaw. Uh-huh. moom mooy xar boo xam ne xaru relève la. te tey boo ko génnee mun naa ne ñett champion yu mag dañuy bëgg. comme kan kan. boo ko génnee suñu père Sibéru day am mbégte. ndax lan. ndax xam na ni fi jaar ak baayam jaar ak moom ndax baayam ci moom la jóge kan mooy baayam. baayam mooy Baydaan. ah tàcc leen waay ndongo doomu Baydaan ah champion boobu ma sama koñ nag léegi. boo ko tuddee tamit grand Issa Saka day am mbégte. moom kay bég na bu yàgg. ndax xam na ni judduleem la ni production am la. mooy moom kan moo ci troisième champion bi. ñu ne déetewaay boo ko tuddee ku ne day xam ne abukan sànniwul xaalisam. Mhm. ndax ku xool lii xam ne bàyyi daal du jomo. mais tey troisième personne ba tey mooy abukan mais moom yaayam fan la bokk noonu. yaayam ñu bokk ci Saloum. yaayam nag maa ngi koy tuddee ñu ngi koy tuddee Caama. man ma koy tuddee gis ree xool muñ laal muy caxu ndax daa tàng jër mais noo tudd yow man Amdi Moustapha waaye tàccu leen ma Amdi Moustapha waaye toj petit gré dafa war a ànd ak armini mu ngi noonu jiili ne na nga waxaat yaa maa ko tuddee gis ree xool muñ laal muy caxu lan moo tax daa tàng jër moom yaay xar bi lu leer tàppaacoli la benn ci yaayam ana yaayam yaayam mi ci box bi box soppi sëñ Saliou lu leer laa wax naka gars yi ñëw xool si mais est-ce que tey xam nga ni xeboo leen bis bi mu bis bi tuut sixième édition bi ñu tuddee ko président Issa Saka moo tax ngeen ñëwee nii. non te gars yi dañoo am chance ndax dañoo daw tuuti yërmande. <laughs> nga ne gars da ngeen daw tuuti yërmande ndax lan. ndax añalu jamaa yaa ngi te dañ ko nëbb doomu xaal yoon yi dañ leen a mais nag gis ngeen président xam nga moom la day daanuy leer. taalibe Serigne Saliou dañuy bëri yërmande moo tax mu yërëm gaa yi nañ bàyyi ba beneen rek tàcc leen bu baax a baax ndongo ci pédigré eh, tey jii fi mu bokk eh, tey ji bay daan boo ko waxee da ngay wax xam ni All Black bi mais tey jii eh, docteur Boy bi daf fay añoo tey bu war a défilé moom mi nga xamante ni mooy Altani julul la def tey jii jàkkaarloo public bi mais Altani ñaata mois la am ah, jili moo koy présenté jili mais jiili moom xanaa day wër di recenser xar ah est-ce que jiili day wër di recenser xar yi ah Mouhamadou Kaay. <laughs> waaw euh, nekk doom si Souleymane Souleymane boobu mi ngi nekk doom si solution solution boobu mi nekk doom si Saloum bu dee côté yaay bi dañoo jël nga nekkaale doomu Abdou Fall ñu jël ko ñu teg ko ci maal bu ñu naan El Afrique mu jur femelle ñu jël femelle boobu noonu teg ko ci Karim Meïssa Wade mu jur yaayu xar bi ñu jël xar boobu noonu teg ko ci yow pël bu rafet boobu moom moo jur jeune mâle bi di Altani waaw mu ngi noonu c'est bon tàcc leen bu baax a baax Altani ci nga xamante ni Mouhamadou moom la wax fi Altani wax bokkut tey jii da ngay gis ni pédigré bi macha allah Euh, tey euh, critère am ak fénitif am rien na boo xamante ni rien à dire euh, ci fénitif ci mensuration ci critère rien à dire moom mi nga xamante ni mooy olympia aja muy noonu ñi nga xamante ni mooy public bi tey olympia su ma neexoon mën naa ko présenter sama bopp su ma neexoon mën naa ko présenter sama bopp ndax tey ji olympia dinaa leen ci jox benn anecdote Euh, mais Olympia bi euh, doomu kan la. tubaab bi ku mooy kan. Napoléon. moom nan la nekkee surtout Napoléon. nekk doomu Diamantaire. Diamantaire nekk champion agneau euh, res 2022. moom yaayam. yaayam nekk doomu Faydu Faydu nekk doomu magistrat ak nawm moom mu si ngi ci dix mu ngi ci dix mois tàcc leen ma bu baax a baax Olympia eh, tey Olympia noo taxawal taxawal Olympia ama tey Issa day sama xarit e tey ginnaaw yàlla mbay balaay la waroon a tudd moom lañ ma tuddee woon onze mois la am mbay balaay la tudd na tey jii mooy taawu jamanteer bergerie xidmatul xadim tuddee ma ko ca Louga mu nekk jeune mâle boo ci doom ñëpp dañ ko doon xaar président Issa Saka dem ba Louga rocci ko nekk na doomu jamanteer jamanteer nag boo ko waxee na xam ni yaayam euh, doomu Fadel la euh, Fadel ci la sukaabe ba dañu jël doomu teraanga boole ko Fadel yaay jamanter juddu ñu jël yaayu jomanteer boole ko nappaloo jomanteer juddu ñu ngi ngay tàcc bu baax a baax a baax a baax moom mi nga xamante ni mooy Olympia nekk na xar bu am yaakaar ah ci onze mois la am nekk taawu jomanteer nag ñu ngi félicité euh, président Issa Saka bu baax a baax a baax euh, ci jéego yi muy def na parce que les leen xar bi normal euh, tey yàkkam jiwuñu defal dàgg-dàgg moom mu kara moom mu dem jàkkaarloo public bi tey nekk na jeune mâle boo xamante ni Euh, boo ko xoolee nag xamaguma asam xamaguma mois yi ma am xamaguma euh, tey jii pédigré mais boo ko gisee rek rien à dire euh, ci melo bi ci jàkk gi ndax xar nag dafa am benn attraction boo xamante ni daf loo ko war a def boo ko gisee rek daal di mën a taxaw pour insister pour xool ko jili ki ñaata mois la am mu ngi toll ci 7 mois. Mhm. moom euh, doom la ci ki nga xamante ne mooy colonel Khadafi colonel Khadafi doom la ci Nuuda Nuuda doomu Vietnam mhm. Nuuda boobu classé woon na ci waaru Tëngéej mhm. nekk ndaanaanu xar macha allah mhm. colonel Khadafi bi nga moom moo ko jur yaayam doom Boy Galoya la boo nee Boy Galoya sax bu baax a baax ci nga xamante ne mooy Cheikh Diop ak premier daaw macha nekk xar bu doy doy waar yaayam aussi nekk ki nga xam ne mooy Togora yaay Toubra yaay boobu noonu doom la ci ñi nga xam ne mooy idool idool nekk doomu roi ba ci macha bi ko président daam partagé ak ñoom waaw xam nga moom ci daam allah macha allah ko bu baax a baax tey da ngay gis ni eh, xar bi mën nañ cee wax lu bëri bari bëri eh, ndaxte xarit soxnaam lañ ko mais Tokoro yaay tey jii papam bi ñuy yóbbu Tafa Arafat la ñu àndaale papaam eh, papaam ñëw fi ba am fi doom eh, mais bul fàtte ni eh, fa ñu jëlee Tafa Arafat te Tëngéej lañ jëlee baayu xar bi tey da ngay xam ni produit yi daam mbay cent pour cent la kon président ñu ngi lay félicité bu baax a baax moom mi nga xamante ni mooy Mukaramo benn la mu ngi noonu nekk na jeune mâle boo xamante ni euh, macha allah da ngay gis ni relève bi exposé noonu ko fii da gis ni ay xar yu am capital génétique ay xar yu am phénotype euh, la fi waa réel exposé euh, ci sixième édition bi ramadan des éleveurs tey jii njaareem limaamu laay réel li xoolal jeune bi mais laay mais laay kan moom mu ngi ci six eh. man di présenté xar yi jógee ci région yi ndax damaa xam li président daa wax di wàcc soxla bi mu franchement bu dee bu dee jógee région ba région ñoom espèce bi bi dañ koy jaajëfal. mais waa Kaolack nag tam yi lañ koy defee ñoom bépp foire bépp foire noonu la def. mais kan. kan do d' abord bergerie Cheikh Mouhidine Samba Diallo grand Ibrahima Sarr waaw moom papaam mooy Paa Watara Paa Watara di sëtti Jalwa di sëtti Bidou Fak yaam di sëtti Bidou aussi di sëtti. mais moom dafa am terrain ak building. waaw macha allah donc sëtti building la. donc aussi ñuy gërëm aussi docteur kii Cheikh Mbaye Seck. Cheikh Mbaye Seck directeur moom aussi Thiès la jógee. moom Saaya ja franchement ñu déplacé. grand Saaya. waaw grand Saaya. donc ñu ngi remercier kii yëpp. Euh, ñu exposé moom dañu leen defal mention spéciale quoi que xam nañu ne koor métti na ñu ak importance bi quoi mhm. donc moo tax ma di présenté seen di jaajëfal bu baax daal kontaan nañ bu baax a baax mais champion euh, benn la del fi nekk nii boo ko gisee lan ngay sànni dañuy wax rek doon bandi di njaab njaabu bandi moo moo tax ma koy njaabal da ngay jàpp xam boo gis ñu jàpp jàppandi. dëpp uh-huh. fa mel mukk muy rafet. <laughs> baax a baax xar bi dafa war a jàpp jàpp bandi uh, su ko defee du dëpp fa mel uh, dina pe défilé uh, nekk na jeune mâle boo xamante ni rien à ci catégorie año. gaynde géej mu ngi noonu taxaw tey gaynde géej nekk jeune mâle boo xamante ni mais jili gaynde géej noo ko gisee. waaw mbay balaay gaynde géej damay wax ni tey su tuddee gaynde géej sa xel day dem ci gaynde te tey gaynde bu nekkee sa maam nga ñëw def cuulu rek wàcc nga mm-hmm. mu ngi noonu moom nag nekk na doom ci ki nga xamante ni moom mooy uh, alan alan boobu nekk doomu Bourguédé Bourguédé nekk doomu gaynde mm-hmm. waaw moom tamit uh, suñu grand ñag baalo moom moo ko fi andi mu nekk xar boo xam ne am nañ ci yaakaar trop macha allah mm-hmm. yaayam aussi suñ la ci diaspora magistrat nekk xar boo xam ne am nañ ci yaakaar vraiment ñag baalo moo ko bi non ñang baalo nag daf ñuy wane ni cerveau la dafa am xam-xam non ñang baalo xam nga dañ koo jiital wax naa la mooy suñu abukan mooy seen abukan waaw gis nga lim ñu fi may ci ay numaari moo tax mu ngi koy wane may ñu ko ci booy biir tàcc leen bu a baax tànk yooyu la ñuy ñaan ki nga xam ne mooy gaynde gi aussi mu jël ko incha allah ate mu ngi noonu gaynde gi tàcc leen ko bu baax a baax nekk ci jeune mal boo xamante ni euh, tey am nañ ci yaakaar mais bu ñu fa jugee dañuy dem ci ki nga xamante ni mooy jaaytaar jagul te boo ko gisee nii foo foog ñu ko eh, feragul eh, tey bàyyeegul ween tey boo ko xoolee rek ci li ma foog eh, kii bu ngi nàpp ba tey mais nag damay bëgg lii ndax tey fi ay expert ñoo fi nekk tey xar bu juddoo wala buy nàpp bu ñu la nee jàkk rek dina xam li nga am dina la xam tey li nga man mais jili ba tey yaay ñëw ci présentation waaw maay présenté ndax sama xarit doom tey la seen Mhm. moom mun na ko présenter mooy. après damay dem si moom mais yow tey jii euh, lan nga mën a wax ci jaaytaar bi. waaw d' abord jaaytaar dañuy ñëw ci pédigré ndaxte moom doomu MK la MK bi daw si ñëw ba pour daw si tey buñ la ko waxee sa ci Saloum ak ki nga xam ne mooy Kalidou Diop macha allah. Mhm. moom yaayam mi ngi tudd ki nga xamante ni moom. mais Firdawsi dina ko ci ginnaaw tey tey. Birane Gueye mooy seexu Ildi Saloum mooy seexu Ildi moom moo jur papa mhm. papa ma ngi fee nekk maa ngi doy waar ko am yaakaar vraiment ñu tawloo ci yaakaar trop vraiment mais yaayam mais moom yaayam doom la ci nga xam ne mooy jàmb jàmb na ni doomu gaara la mhm. macha allah mais ni tax sirib fixation la ndax tey jii tax sirib yaayam doomu gis-gis la te gis-gis moo nekk seexu Moursine mu ngi noonu yaayam euh, tax sirib la parce que tey doomu doomu gis-gis gis-gis tey kan moo ko jur magistrat moo ko jur yaayam nekk doomu Alboury uh-huh. moo tax tey ah. fixation magistrat bu saf sàpp la macha allah mais jaay taat bi kon da ngay gis ni wet gi fi mu jëlee ca Calvin Kap ba waaw Calvin bu baax a baax ah. ndaxte tey euh, moom la ñuy wax le hmm. gis nañ doom yi jur yëpp tey benn ah. benn nekk si boo xam ne tey matros emprunté élevage kon tey da gis ne xar bi Saloum bi day feeñ moom bu baax a baax grand bi di suus candeela bi yëpp mu ngi ci biir macha allah ak Abdou Fall mais ah. Cheikh ñaata bu wàll am am na trois mois ay bergerie kan dogal bergerie leen ko bu baax a baax jaay taar euh, trois mois la am léewoon naa leen feragul ndax tey jii euh, boo ko gisee rek macha allah euh, jeune mâle la boo xamante ni tey boo ko gisee rek attraction bu extraordinaire lay def ci yow lumière bi mooy Arafat Euh, mu ngi noonu di défilé euh, ànd ak bu ñëw boo ko jiitoo du dem euh, tey may ko yoon mu gis fi nga xamante ni fa lay jaar jàkkaarloo ñi nga xamante ni mooy expert yi moom bi nga xamante ni mooy Arafat bokk ci jeune Malion waaw waaw waaw waaw raay ko mu tourné jàkkaarloog ñi nga xamante ni mooy public bi jàkkaarloog ñoom jiili def ko ndànk rek moom boo ko forcé du dem de Arafat la moo tax tuddee ko Arafat Arafat nekk loo xamante ni dama ko bëggoon sama xol ah jour arafat waaw oto bu tuddee arafat Masya allah mu ngi si ñaata mois ni instant ni ya? Ya. mois waaw yaayam moom doomu doomu kii la doomu doomu kii la papaam moo Ya Ya papaam Ya mooy ya ok doomu moom doomu doomu Ya ya. Ya ya ya ya yaayam mu tudd Khadija di doom si. grand ah. Ah, ok da ngay gis ni tey boobu eh, ah. bëlëb tey jii da nga naan Aliya Aliya ado bi eh, ba tey doole bi ci ñilaat bu ngi ak esthétique bi. waaw loolu am na moom. Uh-huh. waaw ndaw la uh-huh. dama préféré ma ne kon la première fois muy euh, maa ngi a ñëw fii ci relais pour ñëw bokk si débutant la quoi. Uh-huh. mais yow doo foo dëkk ci Géejawaay. maa ngi dëkk eh, Géejawaay Golf Sud. Golf Sud. Golf Sud waaw. Ah, naka nga gisee élevage Géejawaay ak réew bi nga ñëwee exposition bi. bi nga gisee élevage bi dafa dafa dafa boo gisee gars yi bu ñu ñëwee fii soo xoolee installation ak accueil bi am solo si si élevage soo gisee ñëw nañ teew nañ euh, gis-gis euh, si élevage bi dafa. macha allah boo ko wéetoo rek. daan nga dem ci ay foire waaw dama daan dem ay bi nga demee foire yooyu ak géejawaay bi nga xew la noo gis niveau bi non géejawaay kon looy wax éleveurs yi nekk Golf Sud pour ñu ñëw bokk réel yi nañ ñëw bokk fii la affaire bi hmm. fii la tàngee fii la jomaay yi nekk fii ak Sangone tàcc leen ko bu baax a baax waa Golf Sud moo ngi noonu andi ki nga xamante ni mooy Arafat c'est très important tey ñi nga xamante ni mooy seen première exposition tey kii kan la yow ah ah, ah? dama dama sadam kenn pokola la wala uh-huh. waaw xar mi nag grand bi da koo indi fi ba pare eh, num tudd kële mais mu dellu Thiès xaw ma nag élèves yi di ko xool lan la wax uh-huh. xaw ma pare lan la wax ci roi Baudouin uh-huh.

Euh, tey kan mooy euh, jur waa Bodoy. voilà merci mbay Mbaye Balaye euh, xar bi kii yaayam Ngom Séréer moo ko jur Ngom Séréer doomu Lamine la lamin jur na doom bu ràññeeku muy araf mm-hmm. ñu boole ko ak benn doomu gelawaar mm-hmm. Ngom Séréer génn Ngom Séréer moo jur yaayam macha allah léegi papam xam nga jëwriñ waaw jëwriñ doomu magistrat waaw ak debbo waaw moo jur papaam allah donc foofu la delluwaat. macha allah léegi soo gisee nag marron bi ci côté yaay bi ngom séeréer bi dafa non du ngom séeréer bi rek. dafa laal également euh kii aropa ki fa bi ñu tuddu bu marron bi. Mhm. ki voilà donc lool mo waral. léegi ñu gis tuddu 10 mois 10 mois dix mois yi manki na 5 jours ci tay parce que suñ ko compté jamono tabaski la ko quoi. machallah allah mais xaru xaru màngaan la quoi. nee na ma bàyyil ko ko xaru màngaan la roi bu dee tàccu leen ko bu baax a baax eh, tey jii boo ko gisee eh, comme séeréer boo ko xamee mu ngi nekkoon ci ki nga xamante ni ah, mooy eh, ki nga xamante ni mooy Louga ñoo Sadam ci boo ko xoolee booy tournel kii mooy kan Pokola tey jii nga jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy tey Euh, caméraman yi ñu daal di jël ki nga xamante ni euh, mooy Sadam euh, bokk ci catégorie año boo ko xoolee rek tey yëmbax na macha allah tey jii soixante quinze pour cent élevage yi da ngay gis ci moom mooy njool gudd ji li ki mooy Sadam pël bu rafet wax naa la doomu si jëm solution solution nekk doomu Saalum mooy solution bu nekkoon ci Souleymane Saint-Louis macha allah mooy solution bi nga xam ne tey ba muy ñëw ci sectoriel yi adam yi àndoon ak Porokhane xar ba ci yoon bi bëri woon coow loolu macha allah mooy moom kan mooy papaam waaw papaam yaayam yaayam nag soo xoolee xar bi tey ñu ne la Sëriñ Saalum la peut-être mën nga am ay jiifi mais yaayam sët na ci ki nga xam ne mooy coow cooli cooli waaw boo xoolee xar bi nga xool cooli rek hmm. da nga xam ne di gars yi naan sët yow li ci maam sët moo koy jël uh-huh. day feeñ ci moo tax auteur bi ak LCS bi feeñ ci moom bi LCS bi dangay gis ne xar la boo xam ne xar bu équilibré macha uh-huh. grand masaer si la borom bergerie Kawsara moom moo jëloon pël bu rafet yàlla dogal mu duggale si ñii ak beneen boo xam ne moom la partage ak Mamadou Ka mooy culu euh, li bi jaaroon sànq ñu koy jaajëfal bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom defal ko ci barke bu si ñaata bu instant mi ngi toll ci onze mois leen ko xel bu baax a baax ma ñu ngi lay féliciter neuf mois neuf mois la toll macha allah tey da ngay gis ci moom maturation yu yéeme ñu nekk ci moom capital génétique am may na ko ko euh, pédigré may na ko ko euh, kon da gis ni ay jeune mâle yu am qualité ñoo ñëw ci sixième édition bi euh, catégorie bi ñu tuddee ko bergerie one family ñu ngi leen féliciter bu baax a baax. waaw mbay balaa ñu lay jaajëfal yow tamit ci liggéey bu am solo bi mun nañu wax ni ramadan bi biir bu mu dooree ba léegi ak yow bi ko déggee ba léegi bon da nga siy ñëw même ci lañ bokk waaw dañ cee bokk parce que yow uh-huh. li ma marqué mooy biñ la ko waxee da nga ne yéen ci naxaate ngeen ne man nag du ma nangu ku ma nax ah mais da ngeen di foire yàlla waaw ndax foire nit ñi waruñoo croiser les bras dañoo war a ñëw bokk waaw foire boo xam ne da ngay def ci weeru koor def entrée bi gratuite. waaw joxe ay ndogu. waaw ku fi ñëw sàngale bi Moustapha Mbow dressé si ay tawul. waaw yaakaar naa ne ndogu li moom suba dina am ñu bàyyi seen kër ñëw fii. daan na moon dressé dafa na moon dressé table loolu la na moon. deux ans d'absence. waaw mu ngi koy récupéré nice. waaw moo tax it macha allah da ngay gis ni. suba incha allah ba mu tëral nagam bi. Ah. da ngay gis ni ay weeru koor day lépp loo Eh, dañu koy bëgg xar yu ndaw yi eh, ñu leen di défilé eh, tey ñi ñuy défilé ñoo leen mag mais ci seen âge ak ci seen critère ak ci seen phénotype tax na dañ lay leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax noo def ko ndànk rek xale la leer na ma bi mu feree yàggul ndax miinagul défilé bi mais Pokola day ñaata mois la. Pokola mi ngi toll ci cinq mois. day soog a fer. ndax tey jii mbote lu bon bon bon bon war dem. di nàmp ba cent vingt jours muy quatre mois eh, tey jii kon moom bi mu fereeg léegi un mois la moom doomu kan la la nguraan nekk doomu yal bi yal mel même kan mooy yaayam moom yaayam bàyyi leen xel pokola bi da tey yal bi bul fàtte ni doomu trésor la ndax dañu ak mais dañoo jël Aline Sitoé Diatta Aline Sitoé Diatta non bu baax Yalmin tuur bi mu juddoo bergerie mystique sama kanam la dañu jël trésor boole koog Aline Sitoé Diatta jaata Sitoé Diatta moom ñoom Picasso ñoo bokk ndey ak baay mu ngi noonu kon nag bàyyi leen ci xel Yalmin dama ko bëgg ndax tey moom Yalmin teg teg ko tàcc leen ko bu baax a baax bokka la mu nekk même bergerie bi waaw di sant nag euh, waa franchement lii c'est ma première fois ma mais foo dëkk ci Guédiawaye. maa ngi dëkk fii amoon si près de mais amul keneen beneen éleveur boo xam foofu. si ay Pa mais beneen jeune boo xamante ni waxuma ay baay Pa As Ndiaye amoo kaat Pa Arouna Sall doyen yooyu. ay soofur ay grand soofur ñoom jiibi. waaw ñun ñëpp xam naa lu ci. bi nga bokk. waaw ci ASC e bi ci ASC e e bi la bokk ci la bokk ASC. waa René ñoom laay franchement gars yi ay tax yi grand yëpp daal macha allah bu baax ko bu baax a baax léegi li ci des mooy ngeen sensibiliser boo yi nga xamante ni bokkuñu wala ñëwaguñu ñu ñëw bokk ci biir Rally adhéré jënd carte membre pour Rally gën a am doole. effectivement loolu gars yi moom su ñëwee jàppale la te fii leen di mbooloo la te mooy doole quoi soo ñëwee rek gars yi ñu lay a dañ lay adhéré jox la lépp nga soxla daal. ne uh-huh. daal li si kanam baax tàcc leen ko bu baax a bi nga xamante moo doon défilé eh, ci sixième édition bi eh, tey